ku ci xeex Ousmane Sonko torox na kenn nettaleetu ko ana Birima ana Birima Bamba Fall ana nga Farba Ngom ana nga Farba Ngom moom dafa ñàkk jom waa Fuuta démb Farba Ngom war na am gàcce Farba Ngom boo amoon jom doon ngor billaahi di nga génn Fuuta Fuuta di bu ngeen déggee tëgg yi bu ngeen déggee tëgg da ngeen rus sax day mel ni Macky Sall Farba Ngom dëkk fa añam nag waaye Farba Ngom kuy wër jaam rek Farba Ngom moo doon géwlu añam di leen tëgg di leen wayaan tey mu am alalu sàccam Farba Ngom tekki woo alalu sàcc nga jël di ko dóore waa añam boo lekkee dese sax dem tur ko ñamu jox waa añam jël sa courant dem guddi ko ca ca taliba ca poto taliba sàcc ko jël say say milliards riime ko ci kër gi ndax alal bu la magee da lay jommal ndax koy teg sa wet di ko xool bu guddee nga di ko xool ndax da lay jommal ndax sa ngor la ko sàcc la ko may bu alal doon faj nit wala muy tax nit bëgg nit kon ñëpp a bëgg Macky Sall waaye Macky Sall nag dafa toog ci alu jàmbur 2019 da koo moomul moo tax ci kaw moom am baat ci réew mi yéen du ngeen rus du ngeen yaras yéen a ñàkk a jom yéen a bon kër Macky Sall bee ca Mër Mousse de dafa def lu rusul def lu gàccalu police yi taxaw ku kor na ñu droité la seet leen lii lii gàcce la lii gàcce la xoolal oto gendarmerie bi dañ ko xale yi dañ ko arrêté xoolal di tàcc ñett ñett ak ak couvert-feu kaw lii gàcce la da ngeen di seet mais boo dëkkee ci réew yàlla àndatul ak yow balaa kenn dina toroxal suturaalaat sa bopp nga génn waaye nag boo toroxalee réew toroxal ay kilifa ay mag foog nga taxaw xaar sa torox tànge foog yàlla def sa tànk yi asiyee bàyyi la ca ba toroxal la Ablaye Wade mi nga xamante ne ah ba bëgg a dee doon mag mu baax ma Sall fii lañ ko doon bëgg a mu daw ci sëñ Baara ah, sëñ Baara ñaanal ko Ablaye Wade Ablaye Wade doon mag mu am am kilifa doon mag mu am yar am teggin am sutura xol ba set macha allah ne perkal moo tax ñi ko war ñëpp torox nañu. ah Macky Sall jaay ko ñàkk kersa googu sëkk këram gee ca point 1 teg ca loxo Ablaye Wade war a dem France mu bëre ko avion yi jël Karim Wade mi nga xamante ni benn la ci bàyyam ne ko rapp ci koso bi loolu mooy sa bàyyi demal nga xam ah Ablaye Wade lebalu Sénégal lu bon Ablaye Wade bu démb doon tey ñu jox ko ko ah toroxal fi Ablaye Wade amul ku mu bàyyiwul te Ablaye Wade ba ko suñ suñ baara ñaane da ko da koo may moom moom moom moom mooy jooy fii ah tey tey Macky Sall ku wax mu tëj ku wax ay xale yu ndaw taqal leen di tëj rek Ahmed Aïdara tax ñu tëj ko ndogalu yàlla Macky Sall da koy bañ mu gayee sàcc pétrole Sall rek Aliou pétrole Sall sàcc Ahmed Aïdara euh, gañe ko en boobu la Macky Sall jàpp ci moom ba tëj ak suñu six mille milliards doo ko tëj bugaan doo doo ko ah Babar Gueye man nekk ci kaam ah loxo moo nekk ci ci ci ci Pape Sow te sàngal meeru kaam bi ñu tëyee ko Omar Gueye moom nga xam ne sàcc nañ gis ñi mu sàcc ñi mu jàpp lépp dañoo xam ne Pape Aliou Sall même Aliou sàcc pétrole Sall dafa sàcc suufu géej gi yëpp loolu lay bañ mu feeñ Omar Gueye dafa sàcc suufu sàngal kaam yëpp loolu lay bañ mu feeñ waaye yow Macky Sall da ngay jeexal dangay jeexal xam nga ne jomme ak tiit ak waaru moo tax ngay génne corona kenn saaleetu amatoo fi kàddu say corona yëpp yëpp denc ko ñaqu dee ñaqu dee sénégalais yi mën a yeewu nañ kenn du ñaqu kenn du ñaq te koo fii jéem a tëj wala naan da ngay tëj jéqi juma ñu xaar bala nga ñëw tëj ñu tëj yaa fi tëj xale yi yaa fi tëj suñuy député dinañ génn le 29 mars ko yaa fi tëj suñuy député Macky dégage Macky dégage Macky dégage Macky démissionné Macky démissionné Macky démissionné Macky na sénégalais yi rey na xale yi rey na ndaw yi Macky jël na ay gendarmerie yu soxor jël ay nervi yu soxor solo leen tëri ne a leen na askan bi dem Bercy moog Youssou Ndour di ko di ko feete Youssou Ndour dem ca Macron di jaay askanu Sénégal di ngeen siw ne pon lu ngeen fi ko wax fii kenn xale yi ah ñoom ñoom ñëpp dem di leen paquetage yi ca kaso ba te yéen a jar a paquetage amee naka taal fekk bi may wax mu naan day sëlëmal xale yi xale yi dañoo yeewu ànd ak seen ngox nga leen sëlëmal naan waaw Macky Sall li mu teg tegu ko fenn yow li nga def foo ko teg yow amee naka taal yow yow yow sa jaam wàcc na ci sàcc yow nga sàcc ba sàcc bi say yow bu ñu waxul di wax nga defee dañ la fàtte yow xam nga ne yow dinañ ne ma sa lokkati sa baxub kaña boo yaakaar sa yaa sàcc Ablaye Aminata Tall tëjal sa gémmiñ kenn laaju kenn laaju la tëjal sa fii ku fi wax ñu tontu la ku bañ ñu tontu la tëjal sa gémmiñ suturaal sa bopp bu ñu waxul bu leen wax Macky Sall de corona bi muy wax waa xale yi xale yi étudiants ñoo ko xañ jàmm waaye képp koo ci bëgg poisonné muy ca lekk ba muy sa hôpital yaa ngi yàlla wàcc ci kaw Amadou ak sa famille sa njaboot ci barke leeru ak xanakar barkar bul kaaba xale yi manifesté wu Europe li ko gis nañ dañuy jël ay butéel di ci def essence di taal ah policiers yi suñu doom yi nag doomu ñu rey nag te di woote naan nee leen rek ah du ngeen wax ci kooku policiers yi fetal suñu suñu suñu njaboot gi nag ah xale yi am nañ droit def def seen i butéel dañuy manifesté wu am na loolu Europe li ko wër koy def du gis nañ ko Europe fu ñu ko gisee du Europe. policiers yi di di di kii seen bopp défendre seen bopp ah nekk Sénégal nga ne ko xolam tàng du wax wala ko xolam tàng du xeex problème duñu xeex jël xale yi di tëj di paquetage ah jël doomu jàmbur rek naan waxal Robert laa Ousmane Sonko ma yónni yéen toroxagu leen da ngeen door ku ci wàccul Ousmane Sonko di nga toog sa kaw lal di di ginnaaw kër di ginnaaw kër muy xasaw xunn ba sa njaboot bi la naw Ousmane Sonko doomu jàmbur da ngeen ko bàyyi Ousmane Sonko doomu jàmbur di jàpp ni ñu di teg nga ni kenn du ko manifester ñëppay génn manifester le 29 di nga bàyyi suñuy suñuy kii député ak suñuy maire fii ban ban dëkk lañ a jàpp ay député ki maire ba bëgg a dee sa draqa jaa nga ne ca géej géej la dëkku fa juddu wu fa yaroo wu fa doon fa wàlluwaat sàcc ba bëri ba biir bi mel ni man lu ma sàcc dugal ko ci biir bi ba mel ni man moo tax ngeen di karees yàlla ngeen néew ba toj ngeen kenn du wax yéen a moom ñi ba kenn du wax pour lan kenn du wax nekk ci plateau yi yéen xoolal réseaux sociaux li ñuy wax la nekkati Sénégal yooyu nekkati télé télé ci poste dox naa yéen nekkati télé ci poste la ñëpp di déglu xoolal Sénégal war a suugi fuuta laa ilaha illa ay eh, réseaux sociaux garaaw naa ah mu naan dama wax ak leader réseaux sociaux réseaux sociaux leader réseaux sociaux moom mujj nekk àddina de gàtt ñamba sadi yéen réseaux sociaux dox naa ah. Macky Sall jënd télé yeeg journaliste yi ah doy na waar kay lii doy na waar de réseaux sociaux yi ah yow àdduna yëpp ñëpp ba Europe ah France fépp laa la wax Europe li ko wër Afrique li ko wër ñëpp doon tëgg yow réseaux sociaux garaaw na ah xoolal Macky Sall na gën a télé yi télé fenkat yi gat di télé fenkat de wan leen léegi kenn seetaanatu leen télé fenkat yi lii gàcca la su fenkatu Sénégal naa fekk yi hypocrite TFM 7FM Africa 7 Leeral FM RTS 2 muy 2S ah seen TV yéen di yéen torox ngeen yéen tëj leen seen télé yi kenn seetaanatu leen lii wane na kenn seetaanatu leen ni ngi gis ay màgget sax ndeysaan toog seen buntu kër mënuñoo daw mais ñu ngi toog seen buntu kër di kàpp kàpp rëcc rëcc man mbana laa gis sama buntu kër mbana naan Macky démissionné Macky yàlla nga dem Macky yàlla nga dem Macky yàlla nga dem Macky senegal bëggatul la Macky dimbali ñu mbana laa wax non réseaux sociaux macha allah xaaral ma ñu jënd téeméeri portable teg ko fii di vocal rek non réseaux sociaux macha jaaraama réseaux sociaux ah. non yal nañu yàlla musal ci iñaan iñaan day dofloo borom iñaan bu dofloo borom moo tax ñu indiwaat fi corona eh yaay. ñun taluñu corona xaru tabaski la ñuy wër yaay tëj Mali ndax nee feetu yàlla bi kenn du ko feete. nee naa leen Macky Sall diine gee koy déranger lu toll ni feetu yàlla feetu feetu yàlla feete koo feete koo feete koo ndax képp jullit yi na kenn du ko fi feete man sama feete ngeen di def muy lan corona <laughs> corona de yàlla na dellu ci sa kaw yaag ak sa yàlla na corona wàcc sa doon déglu bu si seen kaw yàlla na corona yem ci yow ndax Macron fenkat waxati na Macky Sall faale kenn Macky Sall faalewul kenn Macron rek la faale waaye la ñu faale oustaz yeeg nit ñu la ma ne ko ku sa sa askan daw la di nga porté soo bëggee waxtaane moom da ngay porté malade ndax mu dugal yërmande <laughs> ay te mu rey na jaale la